ña doon bës bi ñuy àtte Ousmane Sonko wala bi ñuy auditionné Ousmane Sonko ci tribunal bu Ndakaaru fas yéene kaa déglu ci fond dossier bi ko euh, daal di euh, tënk euh, diggam ak aji Sarr ci présumé viol bi nga xam ne dañ ko ko jiiñ depuis février mars deux mille vingt et mu mel ni dossier boobu jamono ji moom moo daal di soxol Sénégal yëpp ndax gis nañu li nga xam ne rek moom moo di tey doon bés boo xam ne. foo tourné ci euh, biir Sénégal rawatina ci biir Ndakaaru ay check point la police ak gendarmerie euh, daal di tasaaroo ci mbedd yi ku nekk euh, sox sa bal waaye itam sapeur pompier national ñoom daal di nañuy renforcer bu baax a baax mu mel ni dañoo jëm ab guerre. loolu nag nekk loo xam ne rek xaw naa daal di uh, tiital Sénégal uh, uh, lu ni mel ni rek du loo xam ne rek dañ ko fi faral di ndax gajoon na fi ci weeru février mars ci deux mille vingt et un li tax rek tey nit ñi tiitaat moom moo di ca buntu kër Ousmane Sonko nit mënu fa daal di am accès. Ousmane Sonko mi war a wuy ji à 12h ci kanamu juge euh, Maham Diallo moom nag buntu këram takk der yaa fa nekk di euh, brutaliser euh, journaliste yi waaye itam nit ñi nekk ci seeni biir kër sax mënuñoo génn wala ku ca génn doo duggaat loolu nag nekk njàqare ak ci ca askan wa fa yewo waaye itam taskatu xibaar yi ñoom. xaw tuut rek ñu daal di euh, jàmmaarloog euh, takk der ya ndax ne nañu seen liggéey la ñuy def am nañu droit informé te kenn du leen ko xañ dañu leen a bëgg a fitnaal ngir ñu bañ rek euh, daal di xam la fay xew takk der yi nag dal nañuy wër buntu kër Ousmane Sonko ngir di xaar mu génn rek ah, ci ni ñu ko waxee ah, dañu koy sàkkal yoon wu muy ah, jaar loolu nag nekk na loo xam ne nee nañu bu ñu ko defee nga daana daal di indiwaat guuta gi fi amoon ci fukki nit ak ñeent jot caa ñàkk seen bakkan Euh, bu ñu xoolee ca buntu kër Barthélemy Diaz moom euh, takk der yaa nga fa naam nit ñaa ngay circuler waaye la xew buntu kër Ousmane Sonko moo fa xew dañoo leen a daal di tere ngir ñu daal di fay jaar ba noppi daal di baare foofu yëpp ay barrière la kenn amut foo jàllee kenn amut foo dikki am na ci ñoo xam ne sax génn nañu seeni biir kër wala ñu liggéey woon bëgg a duggaat seen kër mu nekk jafe-jafe ci ñoom ndax ku fa ñëw rek takk der yi duñ la bàyyi nga jàll lu ñeel Barthélémy Dias moom dafa daal di eh, bëgg génn eh, ngir dem eh, ca tribunal bu ndakaaru mu àndoon ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di ay garde rapproché àndoon ak ñu yor communication waaye àndoon ak ñeneen ñoo xam ne rek ñoom lay doon faral di àndal ah, ba mu ñëwee ba ci kanamu takk deri rek dañu ko téye ne ko doo dem waaye ñu gis ne Barthélémy ci jooju la jamono tenir na ab discours bu yaatu. ak takk der yi la leen jot xamal moom moo di euh, man maay seen chef étant député nekk itam maire bu Ndakaaru amu leen benn droit di ma téye euh, man maay seen seef balaa ministre de l'intérieur di nekk seen chef euh, lu ni mel nag tax na Barthélémy Dias ne dafay daal di dem mu ne leen damay dem samay garde rapproché samay chargé de com yëpp fi laa leen di bàyyi man maay Barthélémy Dias bu ngeen xamul seen bopp ma wax leen seen bopp te jot na ngeen xam eh, seen bopp bu ma nekkee maire bu ndakaaru nekk itam député amu leen benn droit si man di ma téye lu dul ni ko sax man maa leen war a jox ay ordre yu ngeen di exécuter laata ministre de l' di ñëw ci noonu la ñu gis ne mi daal dañ koy libéré bàyyi ko ngir mu dem waaye ba ñu ko bàyyi ba mu dem ba ca kanam ca beneen sens bo dañu ko fa daal di ah, teewaat lu ni mel nag bëgg jur loo xam ne rek fitna lay yee ci ah, réew mi ca tribunal bu ndakaaru itam nag ah, noonu loolu moo fa xew audience su tey yëpp dañu ko daal di ah, dàq ba jëmmi jamono li ko mu di Ousmane Sonko ma fay dem. Euh, la wër tribunal ba yëpp ay police ak ay gendarme la fees dell ak ay police ay gendarme ku nekk sox sa bal sapeur yi naka noonu itam ña nga fa waaye lu ñeel nag am accès te tribunal ba la ndaxte dañu ko bare lépp loo xam ne rek audience la dañu ko dal di arrêté taskati xibaar yi sax jafe la ñu fa am ngir mën a am accès ca tribunal ba lu ni mel nag doon loo xam ne rek sénégalais yi xaw na leen a di ah, jaaxal lool ah, ndax ñenn ñi nga xam ne rek. ñi ngi xëy di liggéeyi jafe-jafe lay doon ci ñoom tey jii ngir ñu dem liggéey amuñu oto ndax ah, dëkk bi yëpp circulation la ba fees dellu ndax fu waay jaar rek check point la mu doon loo xam ne rek sénégalais yi nee nañu duñu ko nangu nag aw audition Ousmane Sonko te ñu yor seen soxla di liggéey dañ leen a war a bàyyi ñu dem doxi seen ay ah, soxla ci noonu rek la ñu daal di ah, gisee ne ah, diggante takk der yi ak population bi neexul dara ba ci ay kàddu ndaxte ñoom nee nañu dañu leen a bëgg fitnaal brutaliser leen duñu ko nangu waaye ñu gis ne askan wi ci boppam nee nañu même bu fekkee ne bàyyi ñu leen ñu doxi seen i soxla ñu ngi toog di xaar ba xam lan mooy xew ci bu ñu fi bëggee yee fitna rek su boobaa ay bakkan yu bare bari dana fi eh, rotati ñu gis ne démb euh, leader yi daal nañu amal seenu conférence ngir daal di àddu wax ci euh, li nga xam ne rek moom moo di euh, convocation bu Ousmane Sonko tey ñoom nag thèse ba ba tey complot la ñuy wax waaye li nga xam ne rek moom moo di audition bi nee nañu tey bu ñu ko jaaralewut ci yoon di sàkkal Ousmane Sonko fu muy jaar rek ñoom ñoo fi nar yi yee fitna ndax duñu ko nangu te bu boobaa rek réew mi dana yëngu mu mel ni yëngu-yëngu yaa ngay commencé. naa bu fekkee bal tàkkagul dara amagul diggante askan wi ak takk der rek mi ngi commencé di bëgg metti ajur ay jafe-jafe ci lu jëm ci wàllum wax ak delloo ñu gis ne Ousmane Sonko comme 12 heures lay dem wuy ji demagul. mu ngi euh, toogandi këram di xaar euh, ngir rek dal di dem euh, tribunal ba itam ñi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene daal di dem ànd ak Ousmane Sonko lu metti lay doon ci ñoom ngir ñu daal di fay am boobu lépp accès waaye gis nañu ne ci biir ndakaaru tey ji foo xool rek ay checkpoint ngay gis ñenn ñi sax nee nañu ndax ab guerre la ñu jëm waaye am na luy xeeñ loo xam ne rek buñ ci teelul wax ngir bëgg dal di uh, fitnaal Ousmane Sonko di ko wutalee fu muy jaar rek uh, réew mi dana amaat uh, la fi amoon ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk buntu kër Ousmane Sonko doon ay takk der la ñu bëgg moom moo di dal di ut fu ñu ko jaaralee ngir yóbbu ko ca tribunal ngir mu dem wuy ji waaye militant yu passé fi ñoom nee nañu duñu ko nangu jamono ji nag buntu kër Ousmane Sonko calme na sedd na dara amagu fa waaye bu ñu xoolee ci xibaar boo xam ne rek jot naa daal di biir ñi nga xam ne ñoom ñoo di avocat yi Ousmane Sonko dal dinañuy amal ab requête requête boobu nag la ko waral du lenn lu dul daal di bëgg rek ñu daal di am ñu dégluwaat ci fond wu dossier boobu ndax requête boobu bu ñu sukkandikoo ci libération du pôlu avocat yu Ousmane Sonko yi ñoo ko daal di amal ci loo xam ne rek bëgg nañu ñu daal di déglu maître Pape Sow mi nga xam ne rek moom mu avoué publiquement ne recevoir na Adji Sarr quinze jours jours avant mbir yi du xew euh, ci li nga xam ne rek moom moo di coow li ko tënk digganteem ak import ak aji Sarr euh, ñu ne nag dina important ngir ñu daal di xam ana lan moo rek rek ci diggante euh, maître Papa Mamadou Sow moomu ak Adji Sarr waaye itam ñu daal di déglu ki nga xam ne rek moom moo di MC Niass Baye Mbaye MC Niass mi nga xam ne toogoon na di wax ci lu ñeel Adji Sarr ak Ousmane Sonko demoon sax bay wax ne yëf yooyu yëpp ab complot la lool nag moo doon kaddu yi nga xam ne maître Clédor euh, li euh, daal dina koy xamle waaye itam docteur Alseynou euh, Guèye mi nga xam ne war nañu ko déglu ci fond wu dossier boobu nga xam ne moom ci boppam rek moom moo doonoon ki doon jëlee Adji Sarr ci bés boobu di bis bi ñu nekkee woon confinement te maître avocat boobu woowoon ko ngir mu dem jëri ki nga xam xam ni moom moo di euh, Adji Sarr le témoin Ibrahima Koulibaly euh, mi déclaré avoir euh, aussi avoir aussi le 2 février 2021 entendu Adji Sarr dire au téléphone que Maître Sow était en bas de la maison euh, ne pouvait l'amener que si serait la voiture de Mamour Diallo qui passerait la prendre loolu nag maître Clédor Ly daal dina koy xam xamle ba tey euh, ne li nga xam ne rek moom moo di euh, euh, seen bëgg-bëgg moom moo di ñu daal di leen déglu avant de déclarer l'audition de maître Pape Mamadou Seo les avocats de Ousmane Sonko sous la plume de maître Bamba Cissé avait demandé euh, le 5 octobre dernier celle de Baye mbay MC Niass comme je l'avais dit tantôt que Baye Mbaye MC Niass itam war nañ kaa déglu ci fond wu dossier boobu euh, nga xam ne rek moom moo ko dal di tënk diggam ak Adji ginaaw ginnaaw moom moo nekk euh, sëriñu Adji Sarr te jotoon na fee daal di fuité ngir ñu xam rek lan moo xew ci lu ni mel requête boobu nag nga xam ne pour lu avocat aji euh, Ousmane Sonko yi daal dinañu koy euh, amal ngir rek ñu déglu ñooñu euh, laata kay ñuy daal di déglu kile di Ousmane Sonko waxaguñu nag lu jëm ci boobu lay requête ndax dañu koy rejeté am déet waaye nag ñoom seen bëgg-bëgg moom moo di def seen kéem kàttan ba daal di seetal ki nga xam ne moom moo di seen client le leader de Pastef doon fi li Sénégal yëpp di xaar ngir ñu mën a xam complot la wala du complot tey ci douze heures ndax sax ñenn ñaa ngi wax ne est-ce que Ousmane Sonko dina jekki ak gi fa nga xam ne moom moo di euh, tribunal te bu booba bu fekkee yooyu yëpp amu ci euh, ce qui veut dire que ne jàmm ak salaam du am waaye ñu gis ne itam ñenn ñaa ngay wax ñu di ay kilifa toog di wax ne fexe leen ba jàmm ak salaam am ci yàlla def ci ndox mu sedd ndax li fi amoon du fi amaat ba fukki ñeent jot ca ñàkk seen bakkan mbokk yi ñu doon teewlu ci net bi TV Sénégal li lañ leloon tënkal tey ci ab chronique ba sub tey yemook ñetti fan ci weeru euh, novembre ci euh, génnuk Ousmane Sonko ngir fas yéene dem ca tribunal bu Ndakaaru demagul nag naam waaye dana dem ci kanam tuuti ndax 12 heures la war a janook doyen des juges Mamour Diallo woy leen di ànd ak ñun ngeen di teewlu abonné activé seeni cloche de notification euh, ngir ñu di leen tënkal lépp loo xam ne rek moo war a tukkee tey ci wuy jéeg Ousmane Sonko ci tribunal bu Ndakaaru jaa jëf ci kanam